juróom-ñeenteelu bind ci alchama'il almuhammadiya lil imaami tirmidiyi rahmatullahi alayhi xadiisu ñaar fukkeel ak benn nee na xaddathana muhammadu bnu bashaarin sëriñ bu ñuy wax muhammad doomi bashaar nettali nañu xaddatanaa Bishru bnu lwaddaax sëriñ bu ñuy wax Bishru doomi alwaddaax nettali nañu qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu abu aqil abu aqil addawraqiyu waaw diggante xaddatanaa yëpp am na qaala sax am na yu ko am na nusax yoo xam ne indi wuñ qaala yi qaala mu ne xaddasanaa abu aqil abu aqil nettali nañu addawraqiyu kay ko jóg dawraq an abi nadrata jëlee ci sëriñ bu ñuy wax abi nadrata al awaqiyi waaw giiram la al awaqiyu kay ko jóg awaq qaala mu ne saaltu man de laaj naa aba saidin àndandoo yonantu sallallahu alayhi wa sallam bu mag bu ñuy wax abu said alxuduriyi radiyallahu tabaraka wa taala anhu laaj naa ko an xaatami rasulillahi ci xaatumu nubuwati gi nekk ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu ne hmm. kaana nekkoon na hmm. fi dahrihi hmm. ci gannaaw yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama bad'atun dogitub yàpp naashizatun bay aji foñu mooy bay aji feeñ di aji yëkkatiku gën a yëkkatiku Hmm? jigéen sax bu dégg nga yëkkati ci kaw jëkkëram hmm. dañuy wax dafa def nushuz hmm. jëkkërit su yëkkati ci kaw jabaram dañuy wax dafa def nu nushuz wa in imraatun xaafat min baaliha nushuzan ak wallaati taxaafuuna nushuzahunna fa'izuhunna moom mu ne daal hmm. xaatamu nubuwati gi neewoon ci gannaaw yonantu sallallahu alayhi wa hmm. yàpp la goo xam ne hmm. dafa feeñoon yëkkatiku ba gën a feeñ li ko wër xadis ju rafet la xadisu ñaar fukk ak ñaar mu ne xaddathana abul ash'ath abul nettali nañu turam mooy ahmadu mm-hmm. dégg nga de mm-hmm. ibnul miqdaam mm-hmm. ahmad doomi miqdaam mooy turam dëgg-dëgg ma ahmad doomu miqdaam muy turam moom mooy kan mu ne al ijliyu léeg-léeg da gis ñu ne ahmad ibnul miqdaam soo ko indi abul ash'ath léeg-léeg def abul ash'ath soo ko indi ahmad al ijliyu kay ko jóg ij albasri yu kay ko jug basra mm-hmm. dëkk la mm-hmm. mu ne axbarana xamaad bnu zeydin mm-hmm. sëriñ bu ñuy wax xamaad bnu zeydin xabaare nañu an aasim al axwal jëlee ci sëriñ bu ñuy wax aasim al axwal an abdillahi jëlee ci abdillahi ibni sarjisa àndandoo yonantu la jëlee ci seydna abdullah ibni sarjis mm-hmm. radiallahu tabaraka wa taala anhu mm-hmm. almuzani mm-hmm. gërëm la qaala mu ne ataytu man dee dikkal naa rasulallahi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama woowata booba moom fii naasin mi ngi ci mbooloom nit mi ngi ci aw nit mm-hmm. min ashaabihi mm-hmm. ci àndandoom mm-hmm. maanaam maa ngi ko fekk mook a mbooloo ci ay saxaabaam nee na fa durtu ma wëndeelu hakada nii xam naa ne ñam nekkaloon gis nañ nam doon wëndeeloo fa durtu ma wëndeelu hakada naka nii min xalfi ci gannaaw nee ma wëndeelu dem ci ginnaawam fa arafa yonentu xam hmm. ku xeew la sallallahu alayhi wa sallam moo gën a xeew ci li yàlla bind hmm. mu xam alladi li nga xam ne uridu bëgg naa koo gis hmm. fa arafa mu xam alladi li nga xam ne uridu namu naa ko mu ne fa alqaa mu daal di sànni arridaa làmbaayam am wahrihi ci walis gannaawam waaw bu doon dafa kaalawo ñu ne mu daal di Euh, dégg nga puus kaala gi mm-hmm. waaye arab dafa am li ñuy wax isaaru mm-hmm. mooy li ñuy muy mm-hmm. teg ci kaw ni nga gis ñuy xaj noonu di solo nee na mu daldi di puus làmbaay gi ci kaw pour ma mën a gis la ma bëgg a gis mu ne faraaytu booba laa gis mawdia alxaatami mawdia alxaatami barabu xaatamu nubuwati ga ala katifay ala katifayhi mm-hmm. ci kaw ñaari waggam mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. mihlal jumci mbir moom nekkam di mel ni kurfay al jumcu mooy boo dajalee say say loxo ba mel ni loolay jumcu xawlaha hmm? wër na xaatamu nubuwati ga xiilaanun xiilaan jamu mm-hmm. euh, la ci xaal mm-hmm. gis nga bouton yooyu mm-hmm. euh, wala tomb yooyu mel ni luy xaw a ñuul dégg nga nit di ko am ci kanamam léeg-léeg nee boo xoolee euh, xaatamu nubuwata ga noonu la mel hmm? ay mu ne tomb la yoo xam ne dañoo sadd jëm ci ñuul waaw léeg-léeg ñu ne diw dafa am chaamatu mm-hmm. mu mel ni genre bouton mm-hmm. walla tomb bu ñuul mm-hmm. walla mu jege ñuul nee ne daal euh, xaatamu nubuwat yi boo ko xoolee tomb yu mel noonu ñoo ko wër xawlaha hmm? wër na ko xiilaanun ay tomb yu sadd jëm ci ñuul kaannaha booy xool tomb yooyu ñu ngi mel ni zaaliilu ay dégg nga su loolu lañ su loolu nag ba nag pepp lay doon moom dafay mel ni peppam ximsa mu ne boo xoolee euh, li wër dégg nga xaatamu nubuwati yonantu gi noonu la mel sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa rajaatu ma dellu xatta staqbaltuhu ba ma jàkkaarloog moom mu ne ba ma gisee loolu ma dem ma delluwaat ci kanamam ba janoog moom sallallahu alayhi wa ak xam lu rëy mm-hmm. fa qultu ma ne ko xafara mm-hmm. allahu laka mm-hmm. yal na yàlla baal la yaa rasulallahi yow mi yàlla hebal ci jaam ñi sallallahu alayhi wa sallam fa ak yow yow it yal na la baal fa qaala al qawmu nit ñi nekkoon ak saydna abdullahi mi ibnu sarjisa daal di ko wax fa qaala ko al qawmu nit ñi astaghfara laka rasulullahi mm-hmm. ndax yonentu salallahu alayhi wa sallam ci boppam ñaanal na la njëggal mm-hmm. salallahu alayhi wa sallam fa qaala naam mm-hmm. mu ne waaw kay ñaanal na ma njëggal de walakum moo ne tamit ñaanal na leen de maanaam eh, saxaabi bi gis nga ni mu eh, ni mu tawa amee tawaado munoon naa funkaliku ne waaw ñaanal na ma kay waaye mu wax ñëpp ne leen déedéet du ne man rek ma man la ñaanal sax li ciy tegtal humma tala hmm. topp mu topp mu jàng hmm. haadihi laayata hmm. laaya ji nga xam ne mi ngi ci suratul mumin muhammad sallallahu alayhi wa sallam wastaghfir yow yonantu sallallahu alayhi wa sallam sàkkul njëggal li zanbika ngir sa bàkkaar walil muminina ak ñeel jullit yi wal yu góor yi wal muminaati ak jullit yu jigéen yi na nga ñaan yàlla mu baal la say bàkkaar mm-hmm. bu bu yem ci sa ci yow rek mm-hmm. ñaanalal sa bopp mm-hmm. waaye ñaanalal si ñaanalalit kon yenoon su baalul na ma de waaye yéen baalul na leen mooy jarul ngeen ma ko yéemee fii Seydina Abdullahi mi ngi fii wane melo ci melo yu xaatamu ci mel danga nga gis ci yeneen riwaaya hmm. muy mu tudd ne ba muy gis xaatimu nubuwati ma nga ca naaxidu katifil yusra hmm. maanaam ci uh, wet wet ga gën a kawe ci wagg yonentu sallaa mbaggam yonentu sallallaahu alayhi wa wala joggareem hmm. gu càmmoy ñu ne wala yax bu sew ba nga xam ne moo nekk ca uh, pet ga foofu la yëfin foofu la xaatam ba nekk lu ci mën a xew daal xaatam bi moom ba mu koy gis mm. mu ngi ko gis ci melaw jumu'u mm-hmm. mooy euh, bu ñu boolee ñuy baaraam yëpp mu mel ni kurfañ mm-hmm. loolu la arab di wax jumu'u mm-hmm. nee na noonu la gisee xaatamu nubuwati sallallahu alayhi wa sallam maanaam mu ngi koy xool ma nga dajaloo mel ni kurfañ alayhi salaatu eh, dégg nga eh, ma nga gis tamit mm. nee na ay ko wër mm. mu ronile yëkkati ko moom yonentu sallallahu alayhi wa xaatam boobu di wane ne euh, mooy ki mujj ci li yàlla euh, ci ñi yàlla di yónni ñi nga xamee ne tawraat tudd na ko linjiil tudd na ko mellalee ko yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa moo tax ñi ko daan wër màndarga yooyu bokkoon na ci yiñ daan wëreek yonent bi ak di tegtaloo ci moom mooy kan jàng nañ ko ci xadiisu euh, Seydina Salman ba mu jógee Faris di wër yonantu sallallahu alayhi ba xeg si Medina ba nga xamee ni wax nañ ko du lekk hadiya du lekk sarax hadiya rek lay lekk ak it xaatamu nubuwati ween ci ginnaaw ba ko gisee rek ci la daal di waaw tuub xaatam bi wax nañ ci ay wax yu wuutee da nga gis ñu misaale ko léeg-léeg ne xuddatan ci biir xadis yi njàng mooy dégg nga yàpp woo xam ne dafay nekk ci diggante derbe bi nga xam ak yàpp wi nga xam di bouger léeg-léeg ñu ne loolu mooy xuddatu misaale nañ koy ne dafa jéng jëm ci xonq wax nañ ne tamit mu ngi mel ni nenu pitax maanaam nekk lu ron ñëw na ci riwaayatu muslim ne mi ngi mel ni nenu bànjooli dégg nga ci uh, kaw mbaggam mi ci mbagg càmmoñam mi mm-hmm. waaye terewul mu niroog yaram wi mu niroog yaram wi nag mooy mm-hmm. uh, yaramu uh, meloowu mm-hmm. xaatamu nubuwati bi wuutee wut ak couleuru yaramu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi lay jàngal xaat ne moytul xalaat baras ndax ku am baras da gis fa baras ba nekk dafay wuutee couleur yaram wi yonentu nag xaatimu nubuwati gi moo couleur yaram wi nee na ñoo wuute ñoo ñoo niroo sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi al imaamu al bayjuri ci charxu chamail bii ñu tiim wax na ci ne e, taarut mooy di tante amul ci riwaay yooyu maanaam riwaay yooyu bu ñuy waxee li ñuy waxlee ñuy waxlee mu ne mën nañoo dëppale yépp hmm? mu ne di nga gis riwaayat ibni xabbaan mm. riwaayat ibni xabbaan mu ngi mel ni nenu bànjooli mm. riwaayatu bayhaqi ne mel ni mu ngi mel ni pom mm. riwaayatu ibnu asakir mu ngi mel ni bunduqa riwaayatu muslim nee na dana mu ngi mel ni kurfeñ dégg nga ay ay ak ak ay wër ko dégg nga di riwaayatu xaakim ci si saxiixu danga da gis mu ngi mu ngi mel mu ngi nekk chaarun mujtamiun kawar goo xam ne dafa dajaloo yooyu yëpp nag dafay wane ne eh, xaatamu nubuwat yi dafa am ay ku nekk ci xaal ba nga ko gisee rek nga ko nettalee imaam qurtubi mu ne innahu kaana yu yukabbiru wala yu wa yusaxaru léegi la daf daan dañ koy magal ba mu mag léeg ñu ndawal ko ba mu ndaw ku nekk nag eh, fa ba mu koy gis ni mu ko fekkee noonu la ko euh, misaalee waaye daal booy seet rek danga gis ne xadis yëpp dafay tegtal ne xaatamu nubuwati dafa nekkoon lu fës bu neen bu bu ba tuuti du yées bunduqa waaye bu bëree du raw du du du maanaam bu màggee du ëpp euh, jumuul yadi mooy euh, dankub kurfëñ hmm? waaye nee na riwaay yi wax ne mu ngi mel ni jeexitu mixjam hmm. wala mu ngi mel ni wóomab ah, gàtt hmm. walla mu ngi mel ni caamatu bu bu bu xadra hmm. maanaam bu verte walla mu ngi mu ñuul wala ñu ngi ci bind muhammadun rasulullahi wala sir doxal fa innaka al mansuur yaay kuñ dimbale ki mu ne riwaay yooyu saxut ni ko ibnu xibbaan eh, ni ko kii waxee al imaamul donte nag ibnu xibbaan hmm. euh, riwaaya yooyu hmm. waaye nee na wéral gi ko ibnu la ak def def la hmm. ala kulli xaalin euh, lii lëf la ci euh, ay xadiis yuy wane xaatamu nubuwati gi nga xam ne mooy màndargaal na yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ci yonantu yi alhamdulilah bi ñu boolee ci mbooloom yàlla na ñu ci jundal moom borom bi rey ñu ci wala ñuy dajeeg moom ci àdduna ak ci àllaaxira xissan wa maanan hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam amin amin wa iyaakum